baax a baax gis nga aussi biñ ko bàyyee kàddu yu mu yëkkati euh, wane cofeelam ci réew mi. Mhm. waaw nit daf moom c'est un éternel combattant. nit la ko xam ne dafa engagé wu bien avant l'avènement de Pastef du temps du régime de la engagement am en politique am benn discours bu nekk ci wetu askan bi Ousmane Sonko ñëw dugg ci langue politique bi xëy na mu identifier boppam ci Sonko mais nit dof moom taxawaayam gëm naa ne du lu bees sincèrement. Mhm. nekk ñu ngi koy ñaanal yàlla. mu dal bu baax reprendre waat ay activité te ñu xoolaale tamit dossier ñeneen yi ku mel ni Jom Diop Taïf Babacar Ndiaye et autres j'en passe ay xarit yu baax rek la ñu am nekk kaso bi daan wuy fii suñu ay plateau booy ànd nit nag bu mu nekk ci jafe-jafe rafet loolu aussi nga masawu ko mm. Cheikh Ousmane euh, sa gis-gis euh, ci lu yaatu euh, ci li nga xamante ni am na barki dem ci assemblée nationale samedi bi ñu ubbi li nga xamante ni moo di session unique bi ci diggante groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi donc finalement tàqalikoo nañu ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa taxaw c'est logique la mënuñoo réeroo politiquement di xasante toog ci plateau bi yàkk sa maam ku dem ci plateau yàq sa morom lu ne ku yéeg ci perchoiru assemblée bi yàkk sa moroom lu ne ba pare ñu ne group gi ñoo ko bokk dañ ko rafetal mu ngi ne moom day dagg rek mbaa mu jàll dagg na nag yi Taxawu quitté na coalition Yewwi Askan bu yàgg warul woon xaalis sax ñu xëy dàq léegi nag doonul woon génn parce que poste yi ñu perte c'est des privilèges moo tax ku mel ni Aba Mbaye xaw mel nii ku ñu dóor yat di wër di wax rek

vote boobu noonu euh, conseil d' administration wu mairie de Dakar waroon def waa Pastef boycotté ko moo indi Barthélemy lii leen nun koy waxeeti moo indi Barthélemy changé leen de place moo indi waa Yewwi dàq leen ci groupe ba même chose rek léegi nag bële dafay neex a nangu parce que avant ah n'était pas impacté. mais lu tax na léegi lu tax jëluñ jigéen bokk parce que lu tax jëluñ Marie Rose Faye yaakaar naa Faye waaw mais pourtant seen bureau bi ba tey am na soxna su nekk passé ci bureau ba amul de lu tax jëluñ deuxième adjointe Marie Rose Faye lu tax deuxième adjoint bi première adjoint joxuñ ko waa Pastef lu tax baat ba mu bañee bële passé bii paa mu nangu nit ñi dofuñ di politique la rek doo fayu mais Abba nee en politique il faut de la hauteur. Ah te lu ñu mel nee na kenn mënu ko seede. ci ñi nga xamante moom xanaa hauteur fii la xam kaam wax la Abba moom il a un complexe avec Birame Souleye il problème avec Birame Souleye de Birame fi jàng kenn fi falu loolu complexe d' infériorité la gis nga boo amee complexe d' infériorité ci nit dafa moo yoo xam ne daf koy dëggal. bi muy expliqué lu mu wax j' ai appelé Birame fii dàqoo fi jàng kenn. Aba ah quand il parle de jàng j'espère que moom biram waxul boppam buy wax biram Souleye dàqul jàng kenn ca groupe parlementaire j'espère ko waxul boppam. waaw tàngoor Birame da koy Birame day moroomam ci jàng xëy na ñeneen lay wax mais du moom kañ boppam Birame Souleye loo ko mënta accuser jàng bokk ci ak xam-xam loolu laaj ko sax ses opposants ñu bokk biir benn j'espère ko moom boobu waxul boppam beneen bi njëkkoo fee falu kenn Aba Mbaye da moom Birame Souleye faloondoo yaakaar naa député. depuis un an Abba Mbaye ngi ut benn front ak Birame Souleye Birame l'union royalement. yàgg na occupé ay poste lu ko mel ni foofee ca mairie bi bu Dakar yooyu ay poste bu ñu ko nommé laa la yaakaar naa moo Birame Souleye ko amandoo. waaw Birame il est député ci assemblée nationale Birame maire moom il maire. donc moom parcours mu gënul brillant bu Birame Souleye. c'est-à-dire foog Abba revenir. à la raison et garder sa tête sur les sur ses épaules. et Birame dans tout ça. léegi jàppoon ni tey jii ku mel ni Birame Souleye en tant que président groupe parlementaire. man dafa mënu ma gëmul mooy xam nga lan laa gëmul beaucoup de choses peut pour mun a apaiser tension yi. waaw yow looy apaiser maanaam ñoom dañ bëggoon Birame Souleye jox leen seen poste yi poste secrétaire élu yeeg président commission xaw ma président euh, vice président yi. ñu ko ne di xas waa yeewi Abba Mbaye xool dernière sortie yëpp il beaucoup plus sur Yewwi que sur Benno mais naka lañ mën a déggee aussi euh, Birame Souleye bu def seen groupe ni ku bëgg bokk ci bureau bi ñëw war a ñu ñëw inscrire dem ba ci biir gis ne dañ leen ci bëgg exclure waaw ak leen nag politique la ko décidé dama jàpp ne acte politique la vengeance politique la jeex na. mais bi lépp vengeance lan la mën a impacter tey ji parce que ñi ñaa ngi sóoraale rek impact bu mu war a mën a am ci waa taxaw la war la euh, Pastef la ak pur on a comme l' impression ni ñaari. politiquement xëy na au niveau de l' lay euh, impacter Pastef mooy contrôle bi ñu amoon ci assemblée ak doole mooy wàññeeku seen nombre de députés bi wàññeeku. parce que taxaw ki soo avec ses quatorze députés. waaw dara la woon seen taxawaay ci assemblée dana wàññeeku mais politiquement Pastef gagne Pastef se retrouve avec le pur Pastef challenge am ci biir yeewi moo taxaw moo doon man a yow kan mooy yóbbaale le pur te tey Pastef yóbbaale na le pur nga xam ne son électorat tourne entre deux cent cinquante et trois cent mille voix lii moo nekkoon xëccoo bi malheureusement pour xalifa Sall Abba Mbaye ak Barthélémy Dias ñoo ko koo xañ gis nga Khalifa Sall lu mu lu mu ñàkk deux mille vingt a biñ bi seen réeróo bi amee ba tey amul benn sortie bu ñu def boo xam ne c'est productif pour Khalifa Sall contrairement ak comme ku mel ni ñoom tin ak beneen grand bi nu mu tuddati. Hmm, Moussa Taye ñooñu seen sorti dafay defaral xalifa mais Abba Mbaye Baat lu Khalifa ñàkk ci campagne yi ñoo ko ko xañ maa la wax li te li ci kanam rawuli ba et pourtant Moussa Tine bi ngay wax moom la ñu gis barki de mu publier discussion sax ak Khalifa pour leeral ñenn ñi waxoon ni jot nañu ay koppar ngir ñu mun a rallier wu am na sax ñu ne ma mbalaat que ni seen député boobu di Sanu John dafa génn dafa liste resté ci ci groupe parlementaire bu yeewee lu nu mel euh, lu ni mel yëpp waaw ah, mooy ki daan wax ne lu ni mel yëpp nekkul nekkul nekkul li nga xamante ni moo am dëgg dëgg Ousmane Sonko wa tax oui je day dégg naa nit ko am ngor la moom moom moom waxul non mais ba tey mu ngi ci groupe parlementaire bu taxaw. ah mooy li ma la wax amaguñ groupe parlementaire parce que ba tey boobu ñu ngi choisir nekk ay non inscrit oui. Ah, waaw léegi nag taxaw xam fi muy dugg moom spirale bi muy dugg moo baaxul mooy taxaw tey li des ci maanaam li ko des ci campagne bi xam nga seen discours lan la du ñu ay traîtres nous sommes des opposants keroog gisoo fi xalifa demoon baat ànd fa ak moom discours am lan la ñun tëjluwuñu kenn pexeeluñu kenn waxuñ kenn mu def acte buñ ko tëjee. au lieu de proposer il se justifie. parce que nag depuis quelque temps ñu bëri ñu ngi naan Khalifa dafa trahir. léegi nag dafa am ay compromission ak ak ñi nga xam ñoom ñooy la grande en face nga xalifa bu dem sax bañee ngi naan mburok soobe jamono jële moom ak Macky Sall la xam nga xalifa ay jamono buñ daan su ko waa su ko l'opinion daan wax xalifa nu muy nangoo nekk ci opposition bu radical bii Sonko nekk mu di ko soutenir dem bañee naan xalifa ndax c'est un opposant pas ci diggante bi am na lu changé lan moo changé. mais Cheikh Ousmane ci li changé aussi te jaaxal ñenn ñi bokk na ci euh, ginnaaw ba ñu décidé génnee waa taxaw ci li nga xamante ni moo di groupe parlementaire bu yeewi. Mm-hmm. gis nañu aussi ku mel ni Cheikh Tidiane yi mu jamono jële moom mooy président conférence des leaders lu ñu mel aussi lan lay utu. ah loolu day wane ni euh, nu mu tudd pur et plus proche de Pastef que de taxaw allié historique gu taxaw. bu ñu yoree président su conférence des leaders ñu exclure taxaw mooy divorce bi est consommé entre Pur et taxaw Khalifa Sall perd un très très très large électorat. et pourtant ñenn ñi amoon nañ ci yaakaar bi ñu gisee teewaayam ci gàmmu gi. waaw loolu maslaa la woon nag loolu moom euh, c'est le politiquement correct. c'est les cérémonies y a les masla y a les moments de rencontre opposition pouvoir ñu juboo ñu jubóowut waaye boo xoolee bi ñu wanee xalifa boo xoolee ñu toog ci wetam seen kanam da nga xam ne réeroo am na. kon lu ni mel aussi est que war na leer ci suñu bopp que ni PUR ak Pastef moom ci présidentielle bi ñoom ñaar pare nañ. waaw gëm naa ne PUR ak Pastef daal xam naa ne ñooy xàccandoo dóorandoo ku ci génn premier tour sa morom fekk la loolu moom leer na ma est que sax duñ bokk candidat. mais bu ñuy bokk candidat kon kan moo war a. ça dépend non ça dépend waaw PUR jiital nañ déjà seen Mamadou Dia. waaw ça dépend Mamadou mun naa à tout moment. ça dépend rek yooyu yëpp ay stratégie. te ni mel mën na nekk. mën na nekk ak mën naa désister soutenir candidature diw bu jàppee moo ko gën a jege. ak quoi boo nekk candidat boo jàppee ne paate mi moo ma gën a jege yëf te bu ma ko tegee mu falu te bu falu li ma bëgg mooy am. waaye ni ma jàppee ni moom lañu ñu war a yore réew mi noonu lay yore réew mi. des fois faut être faut être euh, faut être réaliste quand même. Mm. ñi ñu daanale eh, ci parti boobu jamono jile taxawu Sénégal ci kan la war a mën a reposer wu bu demee tey ji ba génn deuxième tour parce que soxla woon na bu baax a baax machine yi wàllu te gis nañu ni ñu taxawee nii ñaawoowuñu rek ak ñi nga xamante ñu wee passif mel na ni yeneen oui oui gis nañ ku mel ne ay dambog sax naan leen euh, nu ko waxatee sax samul sër bon kenn xamul ko waxee noonu sa maire boobu oui taxaw moom mënut a jàll taxaw bu élection yu jaar yoon amee score maximum moom 6 pour cent ni mu ko waxee moo di mieux vaut être seul que mal waaw mieux vaut être seul que mal accompagné taxaw bu demee ci élection meilleur score am dëgg-dëgg 6 pour cent la li ma la taxaw bu demee ci élection yi pour cent. taxaw nee nañ Khalifa mooy cinquième ah, président. waaw xanaa boobu ñoom waa taxaw rek ñooy ñoom ñooy lii ñoom ñooy lii bi ñoom ñooy liste électorale bi. maanaam waa taxaw kese war a voté ñu voté Khalifa nekk président loolu kese tax Khalifa Sall falu lu dul lu non yow benn Khalifa Sall Amadou Ba ko gën a sax ko ëpp chance su falu Amadou Ba nga xam ne falu mission impossible moo gën a jege moo ëpp chance Khalifa Sall falu. maintenant hmm. la Khalifa du romb 6 pour cent de l' électorat yii fii yàggatul. yàggatul danañ toogaat di ko waxtaanee fii incha allah. Hmm. tey nag euh, fi ñuy daanelee ci wàllu politique. Cheikh Ousmane Touré moo di sa analyse par rapport ak jamono jële position PDS ak possible retour pour Karim Wade depuis lors attendu euh, ñenn ñi